salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum euh, sunu mbokk internet bi nga xamante ni euh, yéen a ngi seetaan seen bu màgg bi di El Média euh, bon tey nag nekk première numéro émission bi nga xamante ni moom mooy sama xalaat sama xalaat nag tey dama ànd ak sama nawle bi nga xamante ni mooy mooy kooba gu mag gi. <coughs> non non waxal rek te bañ wax waxi kooba. Ah? boo ma gisee ni ma def nii xam na nag Baye Fall laa yow itam voilà. Ah. bon bonsoir madame dégg monsieur le le pré-secrétaire yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaare di leen wàcc jox seen wàccuwaay di wax ne ñu ngi leen di ànd ak yéen émission bi nga xam ne mooy sama xalaat Cheikh lan moo nekkoon sa xalaat. waaw euh, man moom yaakaar naa ni comme ni ko comme ni koy ñëpp di defee rek ndax xam nga réew mi suñu réew la. te réew mi. ku ne am nga ci paar. te xam nga ni. doo jàpp ah? ma ma ma noter waaw waaw d' accord d' xam nga ni dañoo jublu ci bis bu mag bis bu mag muy élection yi. élection yi waaw. waaw waaw te te damaa seetlu. élection yi saa yu jub see rek. nit ñi dañ naan man kii laay fal man kii laa bëgg a fal man kii laa bëgg a fal. te il est temps nag réew mi. Mhm. ñu jox ko ñi nga xamante ni ñoo ko yelloo. dëgg gis nga président dëgg. Mhm. dafa war a mat. dëgg la président dafa du war a doon président boo xoolee soo ko xoolee rek xam ni kii président la. Mhm. ndax man tey su ma sañoon man. waaw ñu fal koo xamante ni tey. soo ko xoolee xam ni kii mérité na ko. c'est sax man dama ci am beneen xalaat xam nga Sénégal danoo tàmm di wut président yu rafet. Mm. pourquoi ñu wut ku ñaaw. koo xamante ni day fas kanamam. cim kenn du ko ñeme. xoolal loolu moo tax na ci loolu man dama ci am idée. waxal idée bi am ci koo xamante ni leer na ma ne tey bu ñu ko faloon. ah mu doon sunu président. te dëkk bi dina avancé. kon yow xalaat nga ci loolu. bu baax réew mi fal leen kii ki nga xamante ni moom mën ngeen war a fal xool leen ñi ngeen ñi ngeen war a fal mbaay. Cheikh pour gagner du temps ki na war a fal kan la yaa ngi xëcc rek. waaw Mbaye doo ma may tuuti bat maa rek. waaw ñëwal ñëwal ma may la fi nii man li ma war a wax fi nii réew réew mi yëpp ko soxla. ñëwal du yow soxla. Euh, ma bëggoon Sénégal. waaw ngeen jàppale ma ci ki ma war a fal ngeen farle ma ko ndax tey imaginer tey tey ñu jël saa njóogu ñu jël saa njóogu fal ko fal mu doon président de la indi senegal Mbaye. ah ma ci xalaat man. saa njóogu. saa njóogu mel. yow saa njóogu lu ñu koy fale. non Cheikh nag yow nag dangaa yeb sénégalais yi vraiment vraiment yaa a quelque de dedans vraiment extraordinaire ci li ngay wax quoi extraordinaire ah saa non non saa njóogu jàngul saa njóogu ay léeb lay def dangaa bëgg nit ñi di wër di léeb wa waaw mais mais mais du yaa wax léegi ni dañu war am président bu ñaaw saa njóogu ñaaw na géppuk ñaaw wante nag matul président waa léegi bu quel que soit alpha ma di la ko wax. mais man sama xalaat laa waxe ah. sama xalaat laa waxe léegi danga may diglu léegi man sama xalaat. waaw sa xalaat. raa léegi yow kan nga xalaat yow. moom fa laa jëm si nii. waaw xam nga bon je crois que daa am nu euh, dafa am lu am solo loo wax. Hmm. muy euh, président bu ñaaw. waaw ndax boo ko xoolee rek ndeysaan mu fas kanamam. bu neex xaaj ne ab Lagos wala kanam ngay mel ne ndox mu neex. <laughs> yow yow nag da xam président nag. moo moo yow nga xam président. man may it yow. waaw pour gagner du temps. pour gagner di temps je me rappelle très bien mm-hmm. léegi ma amoon ci koo xam ne. Mm-hmm. leer na ma ne buñ ko falee réew mi dem ca kanam. ah waa Mbaye ko kan la war a doon nag. te ki ma bëgg a fal nii. Mm. leer na ma ne tey Cheikh buñ ko faloon. Mm. maanaam tey jii ci kàttanu yàlla bu ñu doon dem Europe. Hmm. moom mën na noo bañ a yëg ci avion ndax ay cëppi cëppeem rek. ah laa ilaha illallah. ay yow président boobu ay ay yéen ñu ne am nañ président bu baax di laa <laughs> ilaha illallah am nañ président bu baax. Cheikh oui ah. neen alhamdulilah rabbil alamin man damaa man fii. yow da day naaj. mooy yow da ngaa man. man intellectuel daanaa fii laa. mooy yow da ngaa garaaw. ma bëggoon nag sénégalais yi ko catu. waaw tubaar tubaarkàlla macha allah doomi jàmbur la. dëgg la ba pare li mu def ci réew mi rëy na. dëgg la ba pare def na ay pas yoo xam ne waa Sénégal ku ko ne jàkk xam ne kii moom defar dëkk bi moo ko taxaw. dëgg la dëgg la dëgg la kookan la. muy euh, muy Ouzin Keita ah, mu doon xale boo xamante ni euh, jeune talent <laughs> et cetera ordinaire <laughs> mi ngi mille judd 1898. Euh, moom mu nekk dafa nekk koo xamante ni si intelligent la. Mbaye Ouzin Keita doon koo xam ne. Mbaye <laughs> bëgg naa daal wax dëgg yàlla Sénégal yéen ñépp ngeen jàppale wax dëgg yàlla. Mbaye waaw Mbaye. waaw mais yow boo ma joxul cër sax yow yow yow nga jox cër sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñooy seetaan El Vision Média. waaw boo ma joxul cër man laa wax de. mais man El El Vision tamit man dama bëgg si wax dëgg yi man bëgg lu leen neex moo tax ma fal Ouzin Keita moo tax ne Sa Ndiogou mais yow Ouzin kayta ngay jël de di ko fal mu dem président de la république Ouzin ah. kayta ak cipp ci pem rek. mais man sama xalaat la wax na nga am sa xalaat wax ma am sama xalaat wax keneen am xalaatam wax. <laughs> waye nak wax nga deug nak ah xana ci benn côté nak mom waaw ah. d'accord nak yow. Ah. ndax man xam nga xam nga Ouzin kayta wa ay ci pem rek benn affaire la. te imaginer xoolal mu nek bir palais. wa jek jek rek ni woo deet. te xam nga. yow yow yow xam nga yow nan tege yow yow xool d'accord naa oui mën nañ Mbaye saa Ndiogou. ah waaw mais nag mais nag Mbaye. waaw. Euh, bëggoon naa ñu waxtaan ci ci benn ci beneen ci beneen fànn. ci beneen fànn. ndax Mbaye ba lay génnuñu élection yi. ndax Mbaye. waaw fan yi passé dañ doon def ay ay parrainage. parrainage waaw. waaw gaa yi gaa yi ñii jàll nañ. Mhm. ñii jàlluñu. dëgg la. waaye man Mbaye. ba léegi dama am noo métti. lu la metti saa waa ji. dax ndax Mbaye. waaw Mbaye Bougane Gueye dafa sonn. ndeysaan. Mbaye bu Bougane Gueye looy daj na ko. ndeysaan. Bougane Gueye mooy kii borom TFM wax nga dëgg day tey yaa ngi jaawale. Bougane Gueye moom TFM ak RFM. Mbaye seen TV la. de TFM la nga ne seen TV la. waaye Mbaye loolu bu ko werante seen TV la. ah seen TV la. ah seen TV la. dégg nga. Oh, waay waay TV wax nga dëgg moom TV la mu jël <laughs> la mu jën télé wax nga dëgg télé yëpp am TV. ah télé yëpp am dégg nga. Ah. te man loolu li ma ci njëkk a jaaxal mooy.